waaw mais tey ñu ngi fii ci 100 pour 100 Pikine bi champion Boy Niang ñu ngi lay nuyu Jacob mi ngeen waajalee tey jii bés bi. waaw ñëw ndam rek incha allah rabi ndam rek ndam rek. bi li mu duñ ko gis ci wàllu Pikine tey. waaw ñun ñëpp nekk si ginnaaw soq rek di ko ñaanal ndam lu rëy. Ah. waaw barke alxuraan. incha allah yaa ngi waajal sa combat. waaw ñu ngi waajal bu baax. jaajëf sa combat jaajëf. mais Boy Niang ni ngeen du ni ngeen duggee ci Pikine mosuñu leen a gis ngeen dugg see nii ci làmb ba Pikine sosoo ba léegi engouement bii ñu gis tey jii nii mosuñu koo gis tey. mais faram làmb ji daa yemoon ci soq ak franc. dëgg la mais daa mujj a dépendre foofu doon Pikine parcelle. wallaay dëgg la taxaw ñun Pikine luñ dugg. munoo wax lamb te doon tudd. dëgg la bilaay parce que dañoo ñafe suñu affaire ba yegg si zéro ba fi ñu yegg. Mm. jaante ko ba fi ñu yegg bilaay kenn xajaluñu dañoo jaante ba yegg si. dëgg la moo tax fu ñu jugee xarit suñu ay fan suñu ay soppe day ànd a ñun te bu soobee ci kanam tur bu ñu wàccee nga xam ne Pikine a noonu lay yabee mbër dan lay yab ba xam ne bu ñu ba de rek des nan naan da deewal rek wala nga dam mais Pikine gis naa Pikine nangu lépp ci àdduna billahi waaye doomu Pikine nangu ku ko xas lu waral loolu bu woon ku ko xas ba da nga am coow ay jaan ay bañkat lañu dëgg la fi mu toll nii franc moo yee gaa yëpp franc moo yee gaa yëpp gaa yi dañ doon nelaw sax mais mu mutee yee gaa yëpp ko rectifier mais mënut a rëcc mënut a rëcc te bu dee ba jeexatee dañ naan ko bakkat rek wala victoire dëgg la billahi wallahi toll bis bi laaj ñu ngi xaar ci suuf waaw bu sol bu jeexee jeex na ah. maa ngi ñëw kooku boo